jërë ngeen jëf mbokki internet yi jërë ngeen jëf mbokki axlu làmb naqar ak tiis lañu amee nga xam ne moo di génnuk àdduna dinañ ko yëgal génnuk àdduna ki nga xam ne moom moo di Gaston Mbengue nekkoon promoteur làmb ñuy ñaan rek suñu borom jéggal ko taxaare ko aljana di ko jaale mboolem axlu làmb di ko jaalee njabootam jërë ngeen jëf mbokki internet yi jërë ngeen jëf mbokki axlu làmb naqar ak tiis lañu amee nga xam ne moo di génnuk àdduna dinañ ko yëgal génnuk àdduna ki nga xam ne moom moo di Gaston Mbengue nekkoon promoteur làmb ñuy ñaan rek sunu borom jéggal ko taxaare ko aljana di ko jaale mboolem axlu làmb di ko jaalee njabootam